aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim bismillah ibsilil bokk yi ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat Serigne Touba sunu yaakaari tey ak ëllëg di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaanal sunu kilifa gu baax gii Serigne Abdoul Baaxi sunu borom yàggal ko fi lool moom itam te mu ànd ak wér te yàgg gi am njariñ moo ngi njabootu Serigne Xaasim gépp ñoo ngi leen di nuyu ci aw turam yéen daayira yi nga xam ne teew si ngeen fi bàyyi ko ci ay dëkk yu fasanti ko da ngeen doon mbooloo yoo xam ne fa ngeen nekk da ngeen faa tënku ànd ak moom ci liggéey bii muy liggéeyal sëriñ xaasim ci toolu sëriñ Touba ni ko alaaji guy waxe léegi moo ci am daayirab Touba si yaatu si sëñ ñi mu àndal ñëpp daayirab njaareem sëñ bay luum daayirab kuude sëriñ Jaw Saw moo ko jiite ca njaareem moom itam daayirab Kaolack sëñ Bàcc Mbuub ak taaluba yi mu àndal yëpp daayirab Ndakaaru soxna Faat An Njaay ak ñi mu àndal ñëpp bayti al baytil mahmuud sëñ Moodu Mbay ak ak yeneen daayira yi nga xam ne xay na jaar nañ fi ziyaare daayira kër Mbay Fall Miftaaxul Muna ak yi ci des yëpp kuñ ku ci ne rek bu des tuddee kenn ki rek tudd nañ ñi ci des ñëpp sëriñ baa ngi leen di nuyu yéen ñëpp dañoo toll foo xam ne fi mu ne nii bu ñu bëggee di jël kàddu yu bari rek dana xat ci moom dana dana metti ci moom te moom daf noo yërëm daf noo bëgg bu sañoon day toog di wax ak nun rek ba fajar jot ndax bëgg na nu xam bëgg na nu jub bëgg na nu yeew waaye nag bëgg na nu am waaye nag ñun itam noo ñoo ci doxal yërmaande tuuti nag ginnaaw ma nga war a waxtaan ak ñun waxtaan boo xam ne ñëpp lañ koy bokkal waxtaan woowu la ñuy xaar waxtaan wi ay kàddu la yoo xam ne sëriñ bi daayira yaa ngi nii ñëw nañ jóge ci dëkk yi fasantikoo di leen indi mooy wuy si sa ak ñëw bëgg ku leen dimbale bëgg ku leen jàppale bëgg ku leen jubanti bëgg ku leen teg ci yoon wa leen jariñ loolu ñuy wut lépp nag xam nañ ne am nga ko ndax ni ma ko waxoon bii fii sëriñ xaasim lu mu defar ba noppi ca ba ne lii mooy mbir mi haasa huwa aminu sirri bu ko sëriñ xaasim waxee ci nit ku xam ne di nga xam ne wóot ma yëpp ci mujj mu ngi ci loolu yaakaar naa ne ñi jëflante ak yow ci jamono jii xam nañ ne mate nga sëriñ xaasim dëgg fépp foo xam ne daan na fa taxaw di fa def lu baax ku fa dem fekk fa lu baax la nga def ko ba yokk lépp loo xam ne ab liggéeyam la woon ci biir doomu aadama yi te weesuwul jariñ leen te bañ leen a lor taxawaay boobu yaa ngi ko amee ci ñoom ba ñoom taalibe yi yëpp yëg nañ jariñ loo xam ne am nga ko ci ñoom yëg nañ jàpp goo leen jàpp ak yëg goo leen yëg fii jamono ji toll nag yaa nu ko gën a xam ñu bari réer nañ bu bari wàcc nañ yoon nit ñi bëgg nañ sëñ Touba waaye ñu bari xamuñu lay sëñ Touba sax tayit boole ci ngelaw lu bari jamono ji du yóbbu nit ñi ci lu ne ak ci fu ne nun nag dañoo fas yéene yar bi sëriñ Touba defoon sëñ Xaasim mu indi ko fii ci nun mu def ko ci yow yar boobu dong lañ loolu nag yow mi yow mi nu ko gën a xam dimbale nu ñaanal nu nu am mën a am taalibe googu ba seef bi nga xam ne moom ngay doxee ñun amuñu ko waaye nag ànd nañoo koo xam ne saxaar la ku dugg moom dana la yóbbu xanaa ñàkk a dugg waaye ku dugg moom dana la yóbbaale saxaar ku ci dugg yaag say bagage yëpp mën ngeen a dugg ca biir mu yóbbu bu fa ngeen jëm mu wàcc leen moom ci aw yoonam la nekk du ko wàcc kon na nag ñun ñëpp nañ doon ànd bokk ñaanal ko mu gën fee yàgg yàgg bu am njariñ tanu gën a laxasaayu ñun taalibe yi at yi mu yor nii yaakaar naa ne bu ne woon noppalu naa ñëpp bàyyi ko waaye dégg ngeen ko ne mu wax nee na moom sañ baat boobu sax da koy bañ a dégg ndax nee na sëñ Tuubaa wax ne képp koo xam da ngaa sakkoo noppalu fii ci àdduna wala ngeen da nga fekk ndax àdduna amul noflaay ab liggéeyukaay dong nañu nañu nañu nañu dégluwaat ay kàddoom te di setantal bu baax lii xew ci jamono ji léegi lu tëgg rek nit ñi daal di maase daal ciy jëm man de li li xam mooy moom mi lu ma gis ci laay nekk lu ma gisul rek maandu ak lu baax baax bu ma gisul sëñ du baax ca biir du ca nekk ndax damay xam ne li may sëñ Tuubaa di jox ci moom mii la nekk nekkul ci keneen ak foo mën a dem liggéeyi fa ak loo fa mën di def dëgg la baax na lool waaye yàlla nga fekk nga am ci ndigalam soo ci amee ndigalam ngay jariñu ndax sëñ Tuubaa moo ñu wax ne laa tafaalu shay'an bi xeyri izni fal iznu shartun fi qabuli sha'ni mbirum murit bala koo yàllaa nangu day tegu ci ndigal xalaat ci sam xel mu rafet rek wala nga gis nit ñi xewal nangam rek nga xewal ko topp ca taxul nga jariñu de lii may lii may ak nangu murit mooy la muy def mu am ci ñun nag yaay suñu sëriñ sëriñ xas li nga nu wax loolu la ñuy déglu dégluwuñu leneen dégluwuñu keneen dégluwuñu feneen yow kay yaay wax ak sëñ Muntaxa di wax ak ñu waaye ñun moom duñ déglu ab rajo duñ déglu dara yow la ñuy déglu rek lépp loo xam ne wax nga ñu ko suba ba ngoon loolu mooy suñuy wax lépp loo xam ne jëf nga ñu ko loolu mooy suñuy ndax bu ëllëgee duñ dem ci benn sëriñ di làpp la ñuy ñëw nag ni ñu war a def mooy yow te taxaw ci sa waar wi nga xam ne ci nga nekk suba ak ngoon booy def yaa ngi defaale ñun ñëpp booy woo ñëpp ngay woo buñ ñëwee ku si wutit fasaale nga loolu baax a tax nga di ko def ak mat li nga waaye boo doon keneen di nga ñu topp ci suñuy jikko ñu ngi nii nag ay aaju rek lañu indi aaju yëpp nag mën nga koo faj ndax li nga xam ne moom la ñuy wut si ci yow gis nañ ko moom loolu loo xam dañ koy làmb gis nañ nga defal ko ay nit bataay suñu aaju lañ bëgg nga fajal ñu ko te aaju ji nañ ci jiital defaral na sunu taalube ñu doon ay taalube yoo xam ne dañuy doxe nañ ko bëggee te bañ a doxee niñ bëggee ñu ndax taalube gu ci bari ci seeni borom dañ koy teg ci seen bëgg rek wala xalaat naa ko ni la rafete wala nit ñi nii lañ koy doxal déedéet nun dañoo bëgg taalube xam ne yow moom nga gërëm liggéey bii ngay liggéeyal sëriñ Xaasim it noppal woo ci suba noppal woo ci ngoon fépp fu mu ko yóbbu woon yóbbu nga gën a kawe bëgg na noo ànd ak yow ci liggéey boobu lu sunu positif gàtt gàtt boo nu dimbalee dina baax ndax yow yaa ngi ñor ni xol yi yaa ngi ñor di jëmm yaa ngi wax ak ñoom wax joo xam ne ku dem ci li sëñ Tuubaa di bind wala li mu doon wax ak mag ñi lu mel noonu dong nga ciy dafa fekk ne nit ki boo koy wax loo xam ne dundu ko du ko neex nit ñi moom li bëgg mooy ku leen di wax lu leen neex te yow moom defoo ñun noonu ak ñun ba ku ci yàqoot yeeg si la waaye la koy tax a baax lépp wax nga la xam ne bu ko gisee ci kilifa man koo def nga ko ci sa jëm ba ko ci yow fii fii ñu tool bu fekkoon ne wut alal dong mooy sa yitte yaakaar naa ne waxuma dëkk bi waaye réew mi sax nga cee am loo xam ne kenn du xam nu muy tool waaye xam nga ne alal du mooy mooy jege sëñ Tuuba li mu lay jur na ak li mu lay li ngay jege jege sëñ sa pësteef kawe na xam ngoo xam ne yëf yi du ak njureel du alal ju bari du lenn yëf yi seet li sëñ Tuubaa bëgg nga sax ca la buy naaj mu fekk la ca buy taw mu fekk la ca ni nga koy waxee du doye di murit du waye di gi nag jàpp bari ci murit sëñ doye gi jàpp na ci ñu bari ndax ak murit moom bu demee ba mu ne mënut a ñëw ak muritu Cheikh Ibra Fall murit googu def na koo seetaan Cheikh Ibra Fall mos na geestu loolu sëñ Tuubaa mus la xool lu dul moom mus la déglu lu dul sëñ Touba foo ko sëñ Touba jëmloo fa la jëm te moom gi te léegi nag dana am koo xam ne dana amul sëriñ ba noppi di diglu fukki digal ci biti loolu moom dimbale nu sëñ bi ci loolu nu léegi ko ñun daal nañu nañ lay dégg lépp lu génn ci saw làmmiñ sa nopp na jàll ci suñu xol suñuy cër jëfe ndax ñun loolu rek lañ bëgg a doon bëgg nañu ëllëg lu waaye di lu yàlla di séddale ca bis la sëñ Xaasim kon nag fii dañoo bëgg liggéey bi loo fi liggéey ñu ànd ko ak yow ñun nag moom am nañ ab sax ci yow bu baax a baax a baax Mbàkke waaw ndax fu ñu dem ne Sëñ Abdou baaxee sunu sëriñ wala ci Sëñ Abdou baax lañ bokk lañ cee teg mbir lay doon moo xam ne yow da dalay soññaat yow yow taalib ndax dañ lay wax ne ah kooku de bu ñëpp defoon ne moom lépp baax sëñ Muntaxa ko njëkk a wax sëñ Muntaxa ko njëkk a wax moo njëkk a wax ne Sëñ Abdou baaxee bu ñëpp defoon ne moom ma noppal ndax lu mu wara fekk ci yoon ma war ko def dana ko def fam tok ta duma ci tag ta duma ci tàggu to suma ñewé sama xol set te lepp lu mu wara a ak manit duma sonal ci benn coono ta dina ko def nam war lool la pass pass bobu nak ñun mom lañ bëgg sëriñ bi nga gën ci dimbalé bu baaxa baax daayira yaa ngi nii ñëw ni yéen daayira da ngeen xam sëriñ bi lim bëgg ci yeen moy jub sëriñ bi jub la bëgg ci yeen de ak jaamu yalla lepp lu ngeen ko mëna defal te jubu leen amu leen jom jaamu leen yalla moom wax na ko ku amu ku amul du njub amo jom mu mënu ci yow xol lim bëgg moy fu ngeen nek doon doon fa ay ay ndaw yo xane yene fa nekkal señ ñu mëna xol ci yeen ak talibé te du ngeen ko jangat ci keneen talibé suñu xaas bu gën di jang talibé ci keneen musse ko dégg da ngay genn kay ñu jang ak talibé ci yow waye yow wuro jang ak talibé ci keneen ndax lu mëna xew wax na ko bi suñu xaasim du njar ci soomi yow xam ngeen bu fekke ak njurel la señ tuba jurna bu fekkee nag yi ab yar la sëñ Tuubaa yar na ko te ñaar yooyu ku ko xas boole si sëñ lu desati kon nag nan doy loolu te jàpp man de lii ma gis muy def wóor na ma ne bu sëñ Xaasim ñëwul Abdul Baaxi jërëjëf dong la ci teg leneen du ci teg kon nag ñun ñu nekk ci wetam man gën a takkaayu laxasaay moom boppam lay liggéeyal de bu ngeen defee ne liggéeyam bi dañu mën a ba ñun ñu dugg ci biir te liggéeyuñ mënut a nekk kenn ku nekk ci yéen a ngi nii ñu yor bi seen bidig di jaay kenn mënut a nangu bénéfice bu jàpp ku ne la nga liggéey ci sa bidig ba moom nga am kon nag nan fa séene moom itam nii mu def taxaw féetanu fan nu war a féete lu baax lu ne mu tegtal nu ko ba noppi ci bu ñu koy gis bu ñu gontee koy gis ñu ne tam nan am laxasaay kooku nag mbokk yi buñ def li muy def it ñuy jéem xam ne ñii ñi ngi sama wet nañ ci lu mën di doon te sëriñ bi bu bëggee liggéey fu ne dana fa dugg di soññee boo waxee mu ne ndigal lañ ma jox dinaa ko jox ñëpp bu ko defutit yaay xam ne defoo waaye Abdou Bakhe wax na li mu la war a wax loolu nag bokk doxin woowu lañ am koo xam ne bu bu woote jotee mu woot bu laaj jotee mu laaj la bu jëf jotee mu jëf loola kooku bëgg na nga jarañu seen Tuubaa nan laxasaay waat góorgóor mbooloo mu ci nekk fañ ne buñ fa nekkee nañ jiital loolu jub ak jaamu yàlla ak am jot fas yéene lépp luñ am ñu def ko ci liggéeyub seen Tuubaa bi ndax kan man wax naa ko bii nee naa alal ji fi lañ koy baax daraja ji fi lañ koy baax ak lu mën a doon rek dina xëy bis mu jeex lu ci waaye mën a waaja weccewu na ci poos sax dañ koy làmb génn boo faat dara lu des nag nañ fexe ba li nga xam ne moo ëpp solo ci lépp te moom lañ bëgg a yóbbuloo ci sëñ Tuubaa muy taalibe gu rafet nañ fexe ba sàkku ko ci moom ci déglu man gis na ay nit ñoo xam ci Allah mo lañuy jugge jóge jaar ñu si ñëw du baaxee ba dem te ñun ñi jégué ci moom sax ñu xool loolu nag bu mu dal ñu fa nan fas Allah ëllëg nga dox fi gatt naan man dem moo ne sëñ bi ni mako jégué jegee woon waaye man de xoko moo ne lii yëf yi nii lay dem loolu bu mu ñu dal sëñ tuba bu la boolee ko xam ne na la yow bu do ko jaar ci genn wet ba gis mu manki war nga am posté bu nekk ci wetam te golu ci ay ndigal nañ gor golu ci loolu moom jublu ko ci ñun ak jom ak jaamu yàlla nangoo liggéey rafetalu dëkkandoo rafetalu taalu bi di muñ di wéy ci ndigal wax na wax na ko waxati koog ñun kàddu yi muy wax ak ñun bu set baamuwaat ko ngir bëgg ñu jëriñ nan ci góorgóorlu bu baax kenn ku ne ci ñun di ko déglu dafa yéene fa mu jëm nga di fa jëm ku jëm fi jëm de moom bu gisee sëñ Tuubaa yu baax waaye sëñ du baaxee sama sëriñ te leneen lu tëdd nga nekk ca di di wëndeelu te sëñ du baaxee du la gis du la dégg xamul loolu mbokk yi dara moom mi wax na ma ko nee na ma romb ab xamul xool noonu mbokk yi ak indi nit mu faatu ñu ne kii sëñ bi sab taalu bi mu naan ah fu mu nekkoon nangam nangam jëf jëf jaa amul lu mën doon liggéeyam bi ku ci feeñ ba xam ne dana la xàmmee te noonu la fàtte mukk te loolu mooy li ëpp solo wax na ko fii bi ñenn bàyyi maa la na fi ay nit ñu bari ba mu yegg ñoo xam ne génn nañu àdduna mu ne ñooñu saa yu mbooloo mi bare maa ngi leen di gis loolu lu desat nañ góorgóorlu jamono ji ñu toll gis ku ñu wute baax moo jëf waaye boo ko xasee am da ngay góorgóorlu fexe am lu baax gis dañ koy wut bëgg naa ko nekk naa ci ak da nga koy wut rek am ñi ngi ñaan yàlla nag seen liggéey yi ngeen di liggéey ci kër gi yépp gis na ko ñaan yàlla mu nangul liggéey yépp bu ngeen delloo yàlla dooli leen ay xéewal dooli leen barke dooli leen tawfeex defar seen i mbir te gën leen dimbale ci taalube ak um jub ak um baax ba xam ne saa yu leen xoolee dina gis ci mu yéen ko neex loolu rek la bëgg ñu ngi leen di sant yéen ñëpp nag kon mbokk ñu ñu ñu la suñu loxo sëñ bi ñaanal nu jërëjëf Mbacke nee dafa bëgg ba ñu reeree ba noppi ba dem fee bu ko kenn wuute ñu ñëw te déglu ko ci dal ndax moom luy baaxal tey ëllëg dong la bëgg. ñun sinun yi su baax sa dina baaxee sa àllaaxira baax xamal tool yi xalaat xam nañ lépp baax na waaye nag ndax sa bopp fii wóorul ndax sa bopp fee it wóorul te yàlla moom kenn mënut a muus ba mu cëtiku ba mën koo def waaye kenn du dof ba dafa poor. ba yàlla nax la ginnaaw yàlla kenn mënu koo nax te du nax kenn nan góorgóorlu ñun ñëpp day ah war bu ñu dugalee ci biir bàmmeel dina suul di ko suul pël ba jolli la muy amal lëg war nañ koo xalaat te ñun ñëpp gis nañu ku ñuy suul ba tàyyi pël ba jëm kaw. te ñëpp ak foofu lañ jëm na liggéey ba laq nga demal seen Touba balaa booba moom de loolu la ñaan yàlla boole lu ko dul ñëpp waaye nag li sëñ bi wax de day sëkk ci wax nee na bu doon wax it wax lépp loolu kon nan góorgóorlu rek buñ ko léegee ba noppi daje ka tànt ba ñu waxtaan waxtaanu taalibe bu defar tey defar ëllëg defarug bok defarub dëkkandoo dollinu saayir dollinu ci baatin jërë ngeen jëf dalal leen amiin yaa rabbi amiin nag amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin nag amiin nag bii wali kunta bi taamini ya allah antal amin